ndax ñoom comme ay qualité lañ barkalla la euh, may wut daal moom xam naa ne naa la laaj ba nga daw de waaye bu xasee ab sarte moom yaakaar naa ne kenn gën lewu la waaye xam naa ne ca enquête yi boobu moytu ci ngay doyee daanaa la laajal laajal laajal laaj bu ñu xasee juboo nag moom tabaarkàlla guré ga sax maa koy joxe tabaarkàlla seen yolore Babacar Ndiaye moo dël war ak yéen ci seen émission bii di ëttu xam-xam ci wàllu xar la gi soxna Asi soxna Maymuna waaye tam Sëriñ Ibrahima directeur ca kaw ca kanam tabarakallah euh dafa mel nak fi ngeen koy japp ni duñu am fi la bu len toxal seen deglu bu len toxal seen gis ñu ngi ñaan yalla ñu ci eh, hôpital yi yalla yëkëti leen ñu ci prison yi yalla sam leen ba doxat doxaat delluwaat ci seen famille te mu gaaw ci barke bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom nekk ci nga xam te suñu coor ya nak ñoom itam yalla leen yalla yërem ci jëgal leen damay faral di wax ne ñett ñi wala ñeenti ñi saa xëyee am gan hôpital bis bu nekk mu am gan waaye police bi itam bis bu nekk mu am gan waaye xabru yooyu itam bàmmeele sa jur mu am gan waaye ñetti gan yépp yàlla na ci yàlla musal ba léeg-léeg am ci yoo xam ni du mën a ñàkk waaye yàlla na yéex mel ni mu ngi dellu ak yéen ci seen ëttu xam-xam xam nga yéen bi weesu ñu ngi tolloon ak yéen ci jigéen gi ay façon xelam façon conseil bu mu war a mat borom këram da joxoon la ci misaal ka footoon ordinateur ba dafa am ndeysaan benn jigéen dafa xamul waxeen nag te dañ ne léeg-léeg ki ngay labat na nga fexe ba di ko déglu yow itam góor bi lay labat na nga fexe ba di ko déglu wax ma dund apprécier comme ay daf ma neex ni ñu soloo ay ay ay affaire am ay caajam ay dafa am buzz dafa siiw nangam waxuma loolu ndax léeg-léeg nga gis ku siiw nekk ku nekk ñu koy dégg ñu naan dafa am lii nangam te boo yendoon moom benn ngoon xeeb ko ndax da ngay xam ne dof la wala nga xam ne amul benn jikko qualité bu ne ci moom moo tax wërsëg bul jaawale wërsëg bi yàlla may nit ak qualité bi nekk nii ça n'a rien à voir yalla mën nga may lu wërsëg lépp du ko dénk té kenn mënu ko jëflanteeg moom jëflante bu rafet tellement amul comportement bu rafet motax yalla bu bu ñuy tagg yëneenti bi ali salaatu wasalaam teggu ko ci am-am teggu ko sax ci xam-xam waye teggu ko ci tar teggu ci askan da ko teggu ci comportement motax tax yow ñuy tànn tànnal comportement rek kessé day na sëkk tànnal borom jikko ji rafet moo tax nag léegi ba la yàlla mayee dimbale la ngay am ku lay labat da nga koy déglu ngay déglu waxam ndax waxam diis na ndax waxam am na maanaa ndax waxam am na qualité waaye ndax waxam am na sens ak bu tooree loolu ci ban sens lay faral di waxtaan boo dee ku ñor yow ku jigéen ci da nga dem ba découvrir ne ndeke kii bi la nopp bi ma bëgg dafa dellu ci waxam dafa dellu ci intérêt personnel ki nga xam ne des fois bu ñëwee di labat labat à chaque fois ay projet boppam rek la lay wax bu ma sa dugg ci sa côté yow bu jigéen ci loo bëgg sa ambition lan la lan nga daan def loo bëgg a def loo bëgg a nekk sa situation lan la am ngeen lu mat weer mosoo gis mu dugg ci domaine boobu mu nga ñëw ne góor boppam rek la fi nekkal du dox mukk ci lu lay may lenn bi bis boo amee liggéey tàggu ko bëgg liggéey mu fañ la bis boo ne ko sama fa ma déposé woon génn na doo dem bis boo ne ko damaa bëgg a teg taabal fii jaay doo dem bis boo ne ko damaa a mu koñe la te am ñuy koñe noonu seen jabar léegi gis ko naan nungul ma am dara bis bu sa doom féetee yow mu xeex sa doom ba sa doom lu liit la mënal dara ci la ma daan jox te pourtant loolu yow yaa ngi koy découvrir ca keroog bu mu lay labat à chaque fois wax ak yow ci domaine intérêt personnel rek lay dugg mais du mës a dugg ci sa domaine du la laaj sam njàng du la laaj ban diplôme nga am du la laaj noo mënee du la laaj loo bëgg a doon la laaj looy def du la laaj am sa yaay du la laaj paa bi kañ la génn àdduna du la laaj ndax yaa ngi koy ñaanal du la wax ndax yaa ngi bi nangam sa domaine bu ci wax dara saa yu ñëwee projet boobu lay tegal nit ki lay labat saa wu ñuy bëri ci boppam rek lay tegal bis bu la tekkee ci boppam rek lay nekk waaye loolu ndeysaan ñi ñu takk amul woon niveau pour découvrir loolu ba mu dal ci sëy bi ki nga xam ne mooy ki mu may ko ko amul temps wu bu mu defal ki koy takk yooyu da nga koy bàyyi xel yow mi yow waaye yow miy tànn itam na nga bàyyi xel soxna si ngay tànn ci waxam bu duuf ci waxu yaatoom ci wàllu yaatalam boo ko seetsee nga gis ne daf lay ganale di la gàtte nga gis ne saa boo ko seetee bu demee di jënd ci boutique ba benn boisson lay jënd teg <laughs> yéen ñaar kott ngeen naan mu jeex xale yi dugg di génn du leen may mu sóoraale maire bi kër gi ak ñeneen ñi na nga xam ne ki nga bëgg a takk yaatuwul ci ñam yow loolu yaa ngi ko njëkk féete fa nga ko féete waaye boo ñëwee nga jox ko mille francs na ko jënd ci boisson mu indi la ñaari ngënd boisson yu mag kon doole na ci xaalisam jigéen bu yaatoo ngi nii xel li jox la xel jox xale kër gi kii bu ëllëgee boo loo ko jox même lu manqué dina ko ndeysaan góorgóorlu ba mottali ko moo tax ngal la waaye góor ñi nga xam ne am nañ jigéen ñi jël dépense nañ ko yëram parce que ci xolam la nekk daa yaatu bu ko bañ même moom su ñu koy jox su matut même su ko amul da koy jaral mu lebi ko bu ci moom xolam moo yaatu noonu la mel kon yow rek yaa ko mën a dimbale di ko jox lu jege marché bi moo tax fàttewuma nag point bi ma la wax ci wàllu yeewute ci biir nekkin woowu boo nekkeek sa borom kër walla nga nekk sa soxna ca labat ba nga waroon a sóoraale manta sa mentalité yi ban façon mentalité la may ci doon misaal jox misaal ndeysaan jigéen dafa xamul waxee jëkër ji nag fase na ñetti jawara ba toog nag mu jigéen découragé ndax lan moom ku takk rek daf naan ko sa bobu bu bi bobu bi daa rëy te moom bëggul ko tudd bopp bi <laughs> ndeysaan bopp bi daa rëy lool waaye bëggul ku tudd bopp bi boo tudd bopp bi mu lay fase ndeysaan mu mujj nag découragé ah jigéen gu maam rek da nga tudd bopp bi yàlla dogal nag mu xëy rek dem takki nag ndeysaan ñu ne ma koy jàppal ci yàlla parce que fii booy wër nag ah doo doo doo doo doo doo ah, boo toogee rek di kii doo si génn da dem rek yàlla bari na sutura mu dem takk benn jigéen boo xam ni far ndeke sax amul sens li ñu wax ne da nga jógee cib sëy découragé daal ne man damaa pare ci jëkkër ndax dama am déception ba jàpp ne góor ñëpp yam nga dalaat ci beneen rek gis ne macha allah fa nga demoon daloon moo baaxul rek waaye ak góor ñëpp yemul nga gis ku jógee cib sëy moom itam daal na doy na sëkk pare naa ci demaat ci beneen ndeke yàlla ñetti sëy la ko bindaloon ci juróom te comme ñetti sëy yi jeexagut te ñetteelu sëy la war a amee jàmm lu fiir bi àggul te moo tax kenn du découragé naan dama am déception góor ñëpp déedéet yàlla mu ne fekkee ñetti sëy laa bind ci sa jëf nga xam ne su troisième sëy ci ngay amee jàmm su ko defee nag kon li ñu ciy déggee mooy il faut nga nangu ko moo tax bul dàq kenn ku ñëw rek càmbaral bu baaxee duggal ndax ak gaaw stage bi gaaw a jeex coono yi gaaw a jeex ndax comme ñett sëy lañ leen sëyal bindal gaaw mu jeex sëy ñaar yi mu jeex gaaw nga dem ci ñetteel ah waaye ah soxna may mun a loolu mooy yéen parce que ñetti sëy bu ma bindee il faut nga nangu sëy ñaar mu jeex gaaw nga dem ci troisième bi waaye naan damaa découragé te yaa ngi dese ñaar yu war a tas sa kanam yàlla mu ne tey nga deer yow eh, de waxu go am na ñaar yu war a tas tey eh, doo sa xol nga dugg ci benn góor bu trompe bu trompe la triant la nga ne góor ñëpp yam décourage nag dem nag ba mere góor ñëpp ku la wax rek nga ne ko xam yàlla mu ne bu nga looy ko xamul nga naa ma ne pourtant dese nga benn de te bu la ko waxoon mbir gi waaye yàlla daf naan la dama bëri ay qualité mais yow li nga bindoon ci sa jigéen mooy ñaari sa yu tas ak benn buy dund ñaar yi dee lañ la bind ak benn buy dund bu ngay ñaar yi mu jeex daaw nga dem ci beneen soo gënee toog nag yaa ngi koy gën a yàggal xam ngaa toog fukki at dugg ci benn lu tas yaa ngi des na beneen boo yëgoon na ngaa waroon a sëy ndax mu jeex gaaw léegi nag ndax am na ñetti sëy yu tas jigéen ji moom doon découragé na am na ñetti yu sëy yu seet tas ndax xamul waxin ku góor gi moom itam nee na mun ko mun ku naan ko sa bopp bi rëy mu dem takki daal ci ku gàtt xel nag far benn yoon indi ko mu sëy si nag ndeysaan bàjjan di defoon moom ñetti fan nag ca kër gi daal ne ko maa ngi dellu ca dëkk ba mu koy gunge nag ndeysaan gunge ko ba gaaraas mu ne ko baaj bi dafa xaw a naqar ne baaj bi toogal fii xam ne léegi tey oto bu ñëw nga am oto maa ngi delluwaat ci sëy ba baajoon dégg nga baajoon nag ay waaye boo góor nga góorgóorlu nag baajoon góor te nga xam waxin nag ah man de waxin rek laa lay yeddee moom daal góorgóorlu rek moom daal yow daal yow ñëpp nee nañ baax nga amoo benn problème waaye waxin daal xoolal ni nga waxee sa jëkkër koo am sa jëkkër da nga xam di ko wax wax ju neex mu ne baajoon baax na dégg naa ko xam nga ne ñëpp si yu tas kay man du nga ko am moos bi di dem ñàkk xamaan waxee mu ñëw ci kër gi rek jëkkër ji naa ko ah sa bàjjen vraiment ko baax la mu ne ko dëgg de yàlla bopp bi oh mu ne ko sax oto mu ñëw rek jëkkër ji baax la mu ne ko dëgg de yàlla la de yàlla bi te jëkkër ji ku tudd bopp bi lay dem mu ne ko nga ne la mu ne ko dama ne dëgg la de yàlla bi mu ne ko fase naa la mu daal di jël ay bagaasam dama daal di bàjjan ji fekk bàjjan ji amagul sax oto mu ne ko bàjjan lig ma bàjjan xaar ma mu ne ko la xewati mu ne ko waccati nañ ma de mu ne ko loo defati jeex na loo ciy déggee waccati nañ ma yàgg nañ ko wacc loo defati defati na jeex na ku góor ku mu itam nijaay ji moom da ñëw di ko fees di xool ni mu toogee ana mu ne mu ne ko demal si na de mu ne ko mu ne ko loo waxati mu ne ko lañ ma waxoon rek mu ne ko loo tontati loo dégg mooy lam doon tontu moo di dem il faut mu bàyyi ñu tudd bopp bi comme yow bopp bi jaay ñu ko ñàkkati ndax daa réew te yow itam saa yu léegi da ngay bàyyi jaay di bi ñu koy tudd li ñu ci déggee bi mooy il faut que am loo bàyyi il faut kenn ku ne am loo nangu am loo bàyyi bu fekkee da nga doo nangu dara doo bàyyi dara su ko defee sëy ba du dox su ko defee yow ku góor ki itam da fexe ba nga jàng boo bañee bokk na ci li arrosé mareel gi mooy nga jàng sa soxna yi tax mu bañ a bokk na ci luy gaaw a énervé jigéen mooy marché bu naqari te jëkkëram lu mu xam ne marché bi naqari na ndeysaan day wàññi modèle marché bi daa changé léegi bu daan am deux cent rek day am yabee bu baax bu daa am mille franc rek day am coof bu amul fet waa léegi comme yow da coofe yow muy jëkkëram mu dem ca marché ba fa coof bu baax nga mën def ba yow coof bi nga nekk di coofe mooy da fexe ba muy am coof ba ca marché ba ndax du ñàkk coof bi ci biir kër gi te mooy da ngay fexe sa jabar ngay waxtaan ak moom ci marché bi toogee ba ngeen añ ba pare ñu ne ko naka marché bi gis nga jigéen ñi mu bëggee ko naan ko naka bi nijaay mu ne ko naka marché bi day kontaan yoo xam ne nijaay bi dégg na daaj ci lay am occasion wax la li ci marché bi mu ne la sii papa yow day dafa mel ni sax dangaa yëg sama coono tey gis nga jëg yëpp a yokk mooy daal jën kenn du ko laal yabooy kenn du ko laal kenn da kaa gisatu sax fa man ah mais yow pourtant saa ñu neex na yabooy am na ma ne ah xamoo fan laa ko amee marché Tilène mu ne ko mbéle Kër Mbaye Fall amu ko mu ne Kër Mbaye Fall amu ko Grand Mbao dem naa ba marché Tilène amu laa mujj amee kon liñ ci déggee mooy yow ah, ndeke nekk sa sa jabar jaral nga ko pour nga lekk jabar jaral nga ko mu dem ba marché tuile yaa ngand yaa baax jabar sa jabar la mat yow loolu kii mu ci war a tuile la automatiquement ciy def ak yëg bi ñu ko yëg kon yow ñoo mujj def kon nga yow xanaa yow la ma la joxoon yow la ma la ma la joxoon dem foofu mu liggéey nga ca moom jël na ci xaalisam paas ci aller retour kon léppal ci dépense bi loo ko joxut ndax lan ndeke keroog ba mu seetee nijaayam wala bàjjanam xaalis ba ñu ko joxoon lépp ndeke moom lay def ci dépense bi moo tax bokkul ci li tax mu gën laa nopp nga marqué sa beneen point encore mooy lijjanti bi ñu ko lijjanti ba xam lii de ba nekk làmb sa poos nag daal di léegi itam nag nga daal di génn ndeysaan aw aw aw aw dix mille wala aw trente mille ne comme marché bi daa yokk affaire yi dafa yokk kon il faut ñu changer dépense ndax yaa ngi ko doon jox cinq mille nga ne ko léegi kon yow nga yaakaar ne chéri booy lan nga waroon a yokk nga yaakaar mu ne ah ma man daal xam naa ne mille francs rek mille daal xam naa ne amuñu ko doon yokk chaque cinq mille six mille daal moom bu nga kii sax mais dañ ko mën a débrouiller am dugg lu baax gis nga nga changé cinq mille yi nga daan jox léegi di ko jox six mille moom da ci yëgee ne am na dëkk bi dëgg daaj loolu dund na énervé gu newoon ci xolam ndax imaginel moo tax jigéen ñu bëri ndeysaan ñu woon ñu jëndoon ma dugg ba woon yow dañuy jënd bal barsik yow màcc di ci yoonu ndeysaan ndax tàngoor jigéen ñi ko gis ngi saxam bal barsik ak tàngal bant di màcc rek di noppalu ci kër yi di ñëwaat ndeysaan ndax marché bu métti wër ba tas amoo kawar bu rafet ndeysaan nga sonn ñaq sew bu diis nabbu la nga doon euh, wër amoo ko ndeysaan ngay noppal ko noppal waar rek ndeysaan boo accès rek sànni fële sew bi ndeysaan tëdd su defee noonu yow boo jurul waxtaanee sa soxna yaa ngi koy xeet nag waaye nit ñi ay ci man nga waxta loolu nag diggante dem waxtaan teeg sa soxna ak rëy ak rëy xam ne ndeke am na ku dégg daaj am na ku ko faale am na kuy am na ku yëg li muy daj léeg-léeg gaz bi jeex ndeke balaa muy am gaz des fois wóoree wóoree wóoree ba tas ba añ bi naaj ndeke yow sax li tax añ bi naaj tey li tax nga naajee añ tey moom daa amutoon gaz gaz amut ci koñ bi mu dégg ñu ne marché sàngam rek mën a amee gaz bitigu bi wéy moo am gaz mu daal di jël tas amul ko jàppale gaz bi moo gaz bi ñu àgg di chargé ko mu yenu gaz bi di jaar ci oto bi ak coono yi te ndeysaan dafa amee estomac dafa amee nangam yow di liir te bu ci kanam mu doog a jóg nekk wutum gaz bi ak noppalu ba ci kanam moo tax añ bi naaj bu fekkee ba wax saa sa soxna li muy yendoo ci kër gi gis nga xeet yi day ruusalam na daal mu sañ see woo ci dara day ruusalam na daal mu toggal mu neex nga lekk apprécié woo day ruusalam na daal fu war a mën a ànd leen day ruusalam na mu tàgg la foo ko war a bàyyi bàyyi woo day na daal muy waxtaan nga di ko jànni day ruusalam na del mu di leen ñett li nga bañ kaa déglu day ruusalam na mu toog sa kaw nga ne ko wàcc ma day ruusalam na del tt mu ne demal sangu nga ne ko sangu woon naa day ruusalam na del diwu nga nga ne ko baax na ñi neexuma bu naqari ñàkk a déggoo ci xel bi ngeen xel day ruusalam bari nga ànd ak moom ci kaw lal bi te fekk amul envie day ruusalam nga dal force ko ànd ak moom day wàññi mbëggeel ñàkk woon mu ngay ngàntam yi mu lay jox day ruusalam nga moo tax couple lu jafee téye la dafa ra tax da ngay naxante ak moom ba yeew ko ci bërëb téye ko su ko defee yooyu noonu pourtant yow seen yonent Muhammad alayhi salaatu wasalaam da daan dundal ci diggante moom ay soxna naka nga ma bëgg waxee ne yow da ngay ci yonent bi te ni yonent bi doon def pour dundal say couple yëpp nga rus ko kan nga ne mooy sa yonent yonent bi naka la mën a xëy rek ne Aysa nañu rawante Aysa jóg ñu daw course daw mu ne ko pote maa yow ku njëkk ca pote rek yaa raw ñu départ yonent bi gis nga ndeysaan li ñuy wax markeel boo yoree sa soxna da nga koy may ay point yonent bi nangoo may Aysa ay point xam nga ne yonent bi moo dàq doo Aysa foofu bu ñu bëggee Aysa du ko gis mais rawantee sa jabar raw ko ban ban ndam moo ci am fu lay tàcc lu ñu sax sama dara yaa jigéen yaa sa jigéen fo mosoo gis góor ak jigéen ñu ne nañ leen rawante góor bi raw ko ñu tàcc ku góor ci déedéet waaye bu ko jigéen bi rawee dañ koy tàcc léegi comme dafa yonent bi dafa bëgg may Aysa ay vie dañu wax yonent bi njëkk a maye vie xëy rek daan na may day may ay si ay vie ndax lan nee na ko kaa ñu rawante fi yonent bi denc na ci xolam daa fas yéene ay sa raw si allahu akbar yëkk sikkim yëkk sikkim borom dajaaw rafet ba borom taar bu jéggi dayo ba muy wax ak yow mu mel daa woo seex urus ak or ndax waxtaan bi rafet ak neex deret ak jëmm bu rafet ay tëflitam day faj romb na teen ñu ne ko suñu teen bi dafa wax xorom dafa naqari yonent bi tëflita teen ba mel ni lem allahu akbar ab juróom day wiit boo courant coupé woon te yonent bi di gisandee day leer nag yonent bi xëy daal ne day may vie soxnaam ne ko kaa ñu rawante Aysa moom itam ndaw la booba yonent bi ne ko pëtëlee ku ci njëkk rek maa ñoo raw ñu départ yéen di dina rek ñett ja te Aïcha kii rek yéen di mel ay tànkam mel ni koy kii nii nii rek Aïcha raw yéen di bi topp ci ginnaawam di def effort nag di góorgóorlu mel ni koy daw normal ba Aïcha raw ko Aïcha raw ko di reetaan gis nga mbégte moom Aïcha di am bég di reetaan di reetaan loolu la leen ci bëggoon daa a reetaan loo soxnaam dee leen reetaan loo seen soxna yi waaye dee leen reetaan loo seen soxna reetaan boobu muy reetaan mu ngi reetaan de waaye mu ngi yëg ne bëkkër bu baax la am ci biir reetaan yi <laughs> yéen bi reetaan loo Aïcha may ko ay fii ñu waxtaan Aïcha ne ko maa la dàq daw ndeke ndeysaan yéen bi bàyyi noonu di dem di dem di dem ba bi ndeysaan tabarkàlla Aïcha commencé jëm mag leçon bi yonent bi doon jàngale mooy mayal vie sa soxna bëggale sa soxna reetaan loo ko ku takk xale xale xale lu boo nekkee mag nga xam ne mag nga moo tax boo neree takk ñaari soxna wala ñett danga koy teel a takk ndax nit ba am doom yu maase ki ngay takk mu ñëw bëgg dund dundu xale nga di ko kone sëy bi du neex te moom mi ngay dooleem mi ngay essence am ngay baax waalam mi ngay ay jëfër jëfam affaire ak jonteem jëneem bëgg koo exploité nga xañ ko ko ndax lan parce nee nga mag nga sa doom yi ngay rus yaa ngi koy sëy bi yaa ngi koy xañ lu bare bare bare bare loolu mën naa am sëy xëy tas ndax lan lim soxla mënoo ko koo jox moo tax boo ko naree rek da koy teel a def ku nar takk ay soxna da nga koy teel def ndax ku takk xale xale xale lu yeneen bi mu takk Aïcha daal di xale xale lu may ko ay ji gis nga mu jëriñ ci dem ba màgget bëgg a jox Aïcha beneen leçon ban leçon la ko bëgg a jox tey góor gee mën a jàngale da koo bëgg a jox tey ne kay am saxub ñàkk saxub tilka al ayyaamu daawiluhaa bayna naas tey yow ëllëg sa morom loo am kàttan kàttan kàttan gi dina fay jeex bàyyil xel ne loo mën tey am na ko mu wut bàyyil xel ne mën nga gañ a tey am victoire fan waaye boo léegi mën nañu am ndam ci sa kaw bàyyi xel na ñàkk mën na am tey am ëllëg mën na am am mën na am tey ëllëg ñàkk tey leçon bi la bëgg jox Aïcha bu bàyyi ba Aïcha commencé jëmal mag <laughs> commencé diis wér gi demeetu noona commencé jëm mag yonent bi ne ko kaañu rawante waat fekk Aïcha di ko nettuwaat victoire bu mu amoon ci kawam bu di ko reetaan yonent bi ko nañ ko defaraat ñu départ rek Muhammad raw bi ko yéen bi ràññee laa automatiquement Aïcha li ñu ci gisee mooy ci bi ko ràññee amul ndaw daa benn benn naas tey yow ëllëg sa morom tey loolu la leen digle soxla woon kon gis nga góor gi boole na ñaar ci sëy bi mooy da ngay fexe ba sa buur yaag sa soxna mu am enseignement am am njàng boo àndee sa jabar un an deux ans kenn ku ne war na mën a wax ne ah man de sant naa yàlla ku góor ki war na mën a wax jabar gi ne ko ah man de sant naa yàlla mu ne ko ci lan mu ne ko jikko bi mi ngi woon ci man te yaa ko dindi jikko bi mi ngi woon ci man yaa ko dindi damaa gaawoon a mer yaa ko dindi damaa siisoon yaa ko dindi damaa mënoon a saara yaa ko dindi dama daan def nii yaa ko dindi ku jabar ku jigéen koo xooloo ku jëkkër ji itam jëkkër ji mën a wax jabar bi loolu moom itam ne man day damaa jubóowutoon ak sama mbokk ndeysaan yaa fexe ba maag sama frère yi jubóo yaa fexe ba yaag sama grand frère yi sama grand frère yi yaa tax ba nangam mënuma ko woon yaa yaa ko man ci man yaa fexe ba may mun ma woon a sañse xaw ma woon luy kase yaa tax ba ma mën a boole yu bokk yaa mën a tax ba may peñew léegi yaa bi yaa mën a tax yaa mën a tax extra extra kenn nag loolu mooy sensu sëy waaye ba pare naan sama xal bi sama la la góor ga waxoon sama gel bi kay taar yi ni mu toll sama gel bi kay boo ko gisee hoo tot yaa ngi jabar ci biir kër gi kooku kooku du avancement mooy yow ba léegi fas yéene moo avancé waaw balaa ngay ngay ngay takk soxna da nga doon doxaan nga takk soxna continuer doxaan yow kay yooyu yëpp yàlla na yàlla dimbale ba ñu ñëpp ñu mbokk yi su ngeen bëggee xam lu ci topp tabarkàlla ah may naa ko Maymuna Maymuna jël yaay borom tabarkàlla ku la neex may ko ko nan la ko daggal ay ay ay ay ay cinq mille cinq nga di ko jox sama mbokk jigéen sa mbokk jigéen yi yooyu na fa léeg-léeg nga ne cawu benn sànni ci benn aasi sali ba te e, e, e, maa ngi jaarale na programme yaa ngi problème yaa ngi bëgg a démarrer nañ ko aw foofu kon tabarkàlla suñu bëggee xam li topp ci émission yi su suñu bëggee xam fan la ku góor ki ak ku jigéen ci ñoom ñaar seen couple ci Mayenne TV da ñuy xaar ci aju gii di ñëw ci waxtu bii ak RMB sëñ Ibrahima Babacar Ndiaye moo nekkoon ak yéen biir réew ñu ngi jaar ñëpp sëñ Ibrahima ñu ngi koy jaar di ko jox wàccuwaayam ko ñaanal yàlla te ko ci kanam yàlla defal ko sutura defal ko ndam bañ ko dara bañ ko fa xasal liñ naan làq ko fu loxool yàqkat eggut ak képp ku mbokkal liggéey bi soxna Asi soxna Maymuna ñoom Yirim Mbaar ñoom ak keneen képp koo xam ne yaa ngi ci biir def émission xam la te xamuñ lépp